ki jàpp mbaa sangu te xamut farata xamut sunne ya bokk atte jëfam deesu ko nangu deesul nangu cangaay la deesul nangu am njàppam kon nag farataay jàpp jar xam ak i ndax moytu lii dal waa ji farataay sangu jar naa xam ak i ngir moytu lii dal ji faratay julli jot naa xam jar naa xam ak ngir moytu lii dal waa ji léegi nag dinañ la ko jàngal doog a continuer yow ci liggéey bi lii mooy faratay julli fukk la ak juróom yéene moo jiitu nanga nga jàpp nag yow mi jàng farata boo ko deful julli yàqu kon farata lu jara fonk la fukk juróom la moom laa lay waaja wax nii nii la ko sëriñ Tuubaa jàngalee ci téere bii ngay jàng muy tasawadu siqaar yéene moo ca jiitu benn kabaru armal moo ca top muy ñaar muy yëkkati say loxo bam tolloog say nopp nga wax allahu akbar tabbi ca julli ga ñetteel ba mooy taxawaay ba nga taxaw def kabarab armal ba dugg ca julli ga ñeenteel ba mooy jàng fatiha juróomeel ba mooy taxawaay ba nga taxaw jàng fatiha juróomeel ba mooy taxawaay boobu nga taxaw jàng fatiha juróom ba mooy rukooxu jàpp ci say om juróom ñaareel ba mooy yëkkatiku bàyyi say om taxawaat jonn juróom ñetteel ba mooy sujoot sukku say bëti oom rëpp say loxo teg sëb jëfi suuf mooy juróom-ñetteel ba ca farataay julli juróom-ñeenteel ba mooy yëkkatiku jóge ca sujoot ba ba toogaat jonn fukkeel ba mooy fas yéene ilimaan bu dee des la jiite lu ilimaan def nga toppandoo ko fukk baak benn mooy toftale loo jóge nga teg ca la ca topp bañ faa jaarale seneen soxla fukk ñaar mooy sax ne fa teg boo jàppee say oom ne fa teg boo tegee sa jë ci suuf ne fa teg sax googu jëmmi sax googa mooy fukk ak ñaar ca faratay julli yemale say cër bañ fa nekk di lambi poosa ka xasanu mooy fukk baak ñett ca julli sëlmal wax asalaamu ñeent ca faratay julli jataayu ba nga toog wax asalaamu aleykum ja mooy fukk ba ak juróom ca faratay julli yow jullit bi jàng sa diine na nga xamee noona lii mooy sunnaay julli fukk la ak juróom ñett liqaam mooy benn saar wa ca ginnaaw fatiha mooy ñaar taxawaay ba nga taxaw jàng saar muy ñet biral mooy jàng ca kaw ca fañ war a jàng ca kaw mooy ñeent yelu moy jàng ndànk fuñ ñu war a jànge ndànk mooy juróom bépp allahu akbar bu nekk ci julli bu dul allahu akbar bu jëkk ba nga tàbbee ci julli ga mooy juróom benn taaya ju jëkk moy juróom ñaar taaya ju ñaareel mooy juróom ñett jataayu taaya ju jëkk mooy juróom ñeent jataayu taayay ñaareel mooy fukk julli ga nga julli ci yenent ba ca taaya ju mujj ja mooy fukk ak benn jataayu julli ga nga julli ca yonent ba mooy fukk ak ñaar lay dolli ku sax boo tegee sëb jëna fa teg loola farata la waaye boo yokkaatee tekk ja jëmmi yokk ga nga yokku tekki ja mooy lay dolli ku sax sax loola moo la yóbbu ci fukk ak ñett ca sunnay julli lay dolli ku ci sax nag dina xewe ca fa nga tege sëb jë dina xewe fa nga jàppe say oom biral sëlmal ba wax asalaamualeykum ca kaw ba mu ñëpp dégg ko mooy fukk ak ñeent delloo sëlmal ci sa ilimaan wax asalaamualeykum ginnaaw sëlmal bu njëkk ba nga waxaat asalaamualeykum junj saxar kanam mépp ko mu jëm ca ilimaan ja moo la yóbbu fukk ak juróom ci sunnaay julli noppek ki ñu jiite mu bañ a jàng noppi mooy fukk ak juróom benn ci sunnaay julli sëlmalu yeweeku moo la yóbbu fukk ak juróom ñaar ci sunnay julli banta sutura teg dara fa sa kanam ba nit bu naree jaar ci sa kanam dox ca ginnaaw loolee moo yóbbu fukk ak juróom ci sunnay julli lii ma doon wax lépp nag muy lii ma mujj a wax mooy sunnay julli kon képp ku bëgg a xam li nga xam ne moom la sëriñ Tuubaa jàngale joxoñ la ko ne la mooy sunnaay julli mooy loolu fan la ko jàngalee ci téere bu ñuy wax tasawudu siqaar yàlla nu yàlla may dégg ak topp